ba jéggi siraat amul benn problème bañ na ko tàbbil àjjana amul benn problème même ñiy dugg àjjana sax dañuy toog di rëccu ñu ne waaw nit nan lay mënee dem yëmal xiyaam jàll tubarkalla dem àjjana toog naan mi ngi rëccu maam li maamu nee na dana rëccu li maa lam yakun xaarisan alayhi dana rëccu lu tax lam doon def mbaax ba ndax gënu ci woon xërtal boppam waaye nag keneen ki nga xam nag moom lii moom la ko dal te yàlla su yàlla musal ñun ñëpp moom it dana rëccu waaye dana rëccu rëccu boo xam ne rëccu du ko jëriñ dara yan demu min xaysu laa yan faahu na dem waaw moo tax ñaan ñii dañ am problème dangay dem ci ñenn ñoo xam ne dañuy dem ba yomal xiyaam bu ñu gisee xew-xew bi ak tartar bi dañ naan yaa lay te nii kuntu turaaban man da yellantu woon sama borom sax ba mu may bind mu bañ maa def nit waaye mu def na comme suuf nga xam ni moom dañ koy jël rek lem rek daal di dugal ci kaas yi mu daal di jeex kooku jàq na kooku jaaxle na kooku rëccu na rëccu boo xam ni foofu rëccu dafa am benn solo kon nag saar baa ngi noonu foofu la jeexee ci kàddu suñu borom bi waaye wallaahu aalam yàlla moo gën a xam la mu namm ci baatam yu tedd yi alxuraan bu tëdd bi ñun nag nañ ko rotale ci alxuraan rek jàngee ko ci li nga xam ne mooy njàngale ci bi alayhi noonu dañ ko jëlee di leen ko jotli waaye man ak yéen ñoo ci yem jotli bi yépp ngir man la ak yéen ndax fa zakkir fa inna zikra tanfaul mu'minin kon nag la répétition est pédagogique boo gisee alxuraan ña ko doon wax di ko nettali di si jaar di si jaaraat lépp dafa lay fàttaliwaat sa boppu jekkalaat sa dundin defaraat sa comportement waaye di fàttali jàmm bi lan mooy mission boo xam ne moo la indi fii ci kaw suuf te pourtant mission boobu fi may daanale loolu képp koo xam ni da nga nekk jullit alxuraan wax na ko ak ni mu ko déggee ci njàngaleem ci al Muhammad alayhi salaatu kon nag lépp lépp lépp te boo xool diine yëpp nag diine yëpp xam nañ bu baax doomu aadama lam mooy mission am soo demee ci ju ci jullit ñi dañuy wax ni l'homme te le représentant de Dieu sur loolu mooy tolloog inna jaalna xalifa fil ardi maanaam inna jaalnaaka xalifatan fil ardi yàlla nee na doomu aadama maa ko sàkk ngir moom mu nekk xalifa yàlla muy kuutaange ak yàlla ci kaw suuf si soo demee suñu mbokku chrétiens yi ñoom dañu wax ni l'homme te l'image de Dieu maanaam nit dafa mel ni misaalum takk takkandeeru suñu borom kon ku ak dégg-dégg waaye li am solo mooy euh, takkandeer beeg wala représentant bi lan mooy mission bi mooy nañ ko fàttali ci aadama bi nga xam ne wàcce nañ ko ngir la mu juumoon ñu jéggal ko mu ñëw waaye ngir nag topp programme suñu borom yàlla daal ne na maa leen jox programme bi téelee ma ni ma ko bëggee ci kaw suuf si ngeen doxalee ko noonu bu leen jaar beneen yoon ndax ku jaar beneen yoon li ma lax ci saar bi moo lay fekk ëllëg sa balance day oyof te bu oyofee du baax yàlla nu yàlla xirtal ci lu baax yàlla gën ñu gindi yàlla gën ñu jubal topp yàlla nag jafe na torop mais yàlla nu yàlla yombal mooy yàlla ak yomb waaye yal yàlla jëfe la loolu mooy yàlla ak a yomb waaye yàlla ñu ngi lay ñaan nga jëfal ñu ko lool loolu mag ñi daanañ ko ñaan mu ñaan ñu am solo seen xarit seen soppi Seydina Issa moo doon defal génn tafsir fii ci Lou'Bess TV ànd ak waa régie yëpp macha allah taala di ñaan suñu borom defal ñu siqatan salaamatan aafiyatan bi jaahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu